Syntec di benn entreprise bu xarañ ci wàllu GPS GPS bi buñ la ko montalee fi nga toog dara du la ëpp ci sa oto wala sa moto ndax dangay xam fu mu nekk sa xel daldi daal ku ci soxla wooteel gaaw ci 77 881 34 84. woon comme ni mu def ama seen bu ko neexoon il avait toutes les acquis possibles pour ne lu ma bëree ak mooloo ndax ci defet la jur mais jàmbaar la. donc Modou na bëreek les plus méritants te Tapha Tine fait partie l'un des plus méritants même bu fekkee ne qu'il a été battu par Balla Gaye 2. Tapha Tine moo daan Modou Lo ñoom ñaar ñëpp moo leen Tapha Tine na ci mbër yi toog fukki at daana ko daanul donc pourquoi vouloir briser la carrière de Tapha Tine man noonu laa ko jàppee ba Xaadim Tapha Tine bu duggoon Sa Thiès daan ban fin lay am. mën naa sooxe bu baax mooy carrière am sax yàqu donc nañu ko bàyyi opportunité yi nga xamante ni que am na ko mu saisir ko c'est ça la réalité mais jusqu'à présent ba nii may wax yow comme Sa Thiès Tapha nekkul actualité Sa Thiès dafa war a xaar Siteu Modou Lo Tapha Tine dafa war a xaar Siteu Modou loolu mooy dëgg. léegi Modou bu déggee roi des arènes bëriwul ak ñoom Balla Gaye lay bëri wala bu bëriwul ak Balla kan lay bëri après day toog janvier xaar Umar kan rek rek daan mën a ko bismillah. mais Bouré la nga jàpp ne euh, au fond moo nekk ci diggante Modou Lo ak euh, tafaatin Tine suñ ko waxee ko maam ak Tapha Tine chaque fois dina teg benn benn. Tapha Tine ko saful rek loolu day am jàpp na ni peut-être moom du neex. lu ñu wax ne Modou Lo tant que daanoo Balla Gaye daanoo Balla Gaye du sawar ci say mbir est ce que loolu tamit ah, mun ci am. dina dina sawar ci mbiram moom déet de waaye daal en tout cas li logique wane te làmb di ko dox mooy Tapha Tine moom ak Siteu la war a xaar non non mooy xaadim mooy dëgg ñu làmb dañoo mën a safal ñeex ak da ko nekk def yëpp loolu mooy yoon Tapha Tine fait partie l'un des yi ëpp supporter ci làmb ji Tapha Tine très grande commune communauté de bool-bool yu nekk ci ginnaaw muy seen mbër di def seen doole ci moom yoo xam nga ne man bu critiquer Tapha Tine jotee dama koy critiquer léegi yow xam nga sa bool-bool yi làmb ji passé marine rek lañ ma deful waaye comme man Ndingler laa dëkk moo tax te Ndingler ak Réfane sorul moo tax moo luñ ma dara mais bu dëgg jotee dañu koy waxte yàlla tax Modou Lo li muy schéma ci làmb moo jaaduwul. te loolu mooy dëgg mooy depuis ca digganteem ak Ama Balde ba sunu jon yàlla yi tey de schéma bu yeboo ñu ne buur dafa soxor ma tey waa parcelle ñoom El Hadj Diouf ak gars yooyu génn leen suba ku dugg Pikine ba génn boo duggee parcelle amul problème. waaw c'est vrai que Modou Lo mu jël couronne bi ni mu jëlee ak après am na tuuti différence. Jali muus la xaadim wàqi rek gis danga koy bañ a dégg rek. waaye dama ni keroog ba mu jëlee avance su amaa Balde ba sunu jëne yàlla tey ci schéma ak tactique rek la ne Modou boobu nag xamuñu ko woon Modou bi ñu xamoon day jàmbaar ku am mérite pour taseeg moom mu ne la bismillah ñu bëri ku mën sa morom duma mais nag bul ni maa ngi fin de carrière pratiquement je veux terminer ma carrière en beauté wala kat bëgg naa terminer bàyyeeg Francesco couronne bi yooyu day wax couronne bi nañ ko teg en comme ni ko ay morom tege woon en jeu ba mu yëgsi ci moom ku ko mën a jël jël ko la vie continue. mais Mour tey Mour la bu nangoo jël carrière mu bëri ceeg euh, Bombardier bëri ceeg Lac de Guiers bëri ceeg Baye Mandione te ñun ñoo ñëpp ñu bëreel bi ñu bi muy bëri ak ñoom ku ci nekk presque double na double na poids am te xoolee Tapha Tine Bombardier moo ëpp Tapha est-ce que tey boo génnee raison boobu noonu ban raison nga mën a tax ne moo tax Mour la bëriwul ak Tapha Tine. woon tey Modou Lo daan Tapha Tine amul problème mais na ko jox cette opportunité la loolu mooy le plus juste. waaw waxuma pour man waxuma sax ay aspect ragal la Modou Lo ragalul ku yàlla bind mais dafa ne ci ay calcul mooy naa def lii su ma defee lii def na loolu mooy problème bi te loolu waru ko en tant que roi des arènes waaw. non non non jaru ko loolu dafa leer sax loolu même ñi koy supporté ak ñu ànd ak moom ak ñi koy nangam nangam xam nañu loolu quand même na danga koy xam kay wax ko wala nga xam ko bañ ko wax mais c'est ça la réalité Tapha Tine mbëri la comme mbër yëpp. c'est quoi le but c'est quoi le but euh, de ça de téye bi di def ay schéma pour jël kii bàyyi. sa carrière ba moytoo daanu. voilà pour yàgg couronne bi mooy Modou Lo va marquer l'histoire mooy man maay seul roi des arènes boo xam ne dee naa couronne bi pan pendant dix ans pendant quinze ans kenn daanu ma loolu mooy gloire am ci làmb mais alors que c'est pas comme ça si Eumeu Sène faisait faisait comme ça moom du bëri Eumeu Sène si keneen ak keneen ak keneen faisait comme ça eh, kon du demee noonu donc na am benn esprit d'ouverture Tapha Tine ay am Sa Thiès ak Omar Kane rek loolu mooy dëgg leneen lu mu fi def dafa def li ko neex rek yaakaaruma ko alors que bu ko defee dina def lu injuste lu injuste lu injuste loo xamante ne que tegul fen pour dire vrai Tapha Tine mérite de bëre un combat royal il le mérite quand même mais ci defet la jógee diw ci defet la jógee Modou bi muy dégg bi muy dégg des arènes ci defet la jógee defet bu metti sax ñu jàpp ko yëkkati ba ca kaw xattar bi bitter ñi door suuf waaw ba mu ñëwaatee ay supporters dañ ko gëm yàlla dimbali ko mu dégg waa des arènes donc na am esprit d'ouverture ba bëre gars ko mérité kan loolu am na solo buur euh, ñu jeexal suñu parti waxtaan ci ba tey def na benn sortie jokkite ay kàddu jëmale ko ci Siteu keroog ci bi ñu ko jox trophée meilleur lutteur bi euh, que ni combat bi nii moog Siteu foofu ci caaxaanu ci te ñu naan mooy favori ak moo moo mën ci bëre mën ci xeex lépp taxu mu taxul mu considéré loolu dafa jàpp ne am ci kanamam muy Siteu bu ci fooyee rek dañ naan dafa combine bis bu ci fooyee combine bëri la loolu mooy dëkk te moom xam na loolu nit ñi di wax te nit ñi loolu ñuy wax lu ñu gëm la bu lépp jaari yoon laa wax trent cinq combats si te mënti daan mënuloo ah. waaw mooy li wax nga ne. lu baal ma de bu lépp jaar yoon. 35 combats Siteu mënul daan Modou Lo plus plusieurs raisons yàlla nag dara tënk ko yàlla dara tënk ko mën nañ bëri suba Siteu daan ko yàlla mën na lool moo tax man la bu lépp jaare yoon waaye daal coowul coowul commune bëri moom mu ngi ci penc mi ak ci grand place ak ci may geeg ci restaurant ñu ngi xaar le 24 yàggatu. ñu ngi wax ay waxu sot aussi nee na moom ñooñu calculé wu leen. loolu nekk ah, ndaanaan Yaxe Diop keroog ba muy dajeeg Moustapha Gueye ba mu génnee sorti bu mel nii la def booy lamb ndaanaan bu fi yàggee yor couronne wala lu mel noonu saa buy bëree waat waa lamb ki gën a néew doole la ñuy faral logique la yàgg na ci lamb eh, <laughs> ah, loolu dara waaw. macha allah bu waxtaan am na solo merci ma bàyyi la nga tàggoo. waaw jërëjëf xaaral xanaa di. remercier ñëpp rek wax dëgg yàlla di kontaan ak di bëgg rek ci sénégalais yi maa ngi gis commentaire encouragement yi maa ngi gis saaga ndey ñëpp kontaan naa ci ñoom jërëjëf xol set na waaw man buur daal maa ngi nii kër bukki laa dëkk te kër bukki moom ku ne xam ne xaarim ñàkkul coow. macha allah buur am na solo ma lay jaajëfal bu baax tamit euh, làmb ñu jàppee ne tey li buur wax nii xalaatam lay wax rek te làmb tamit noonu la ku nekk am nga droit wax sa xalaat te c'est pas forcément que li mu wax nii moom mooy am yàlla rek moo xam luy xew suba ma leen jaajëfal bu baax a baax di sant ñëpp beneen invité ci waxtaanu làmb